ñu ñëw ci actualité en ce moment actualité làmb dañu gis géejawaay temps yi ñu bolo doon ben yalla na yàlla xeeb dolli Balla gay 2 la de guerre 2 xalé yi matcha digal ñom ñëpp en ce moment ñu bolo ba ci sax di bokku di entraîner ci din yi lan la. wa no ñun fallu xam nga lepp ñun ñu tagaliko mais euh, dafa am lo xam bu boo fa tolloo rek bu pàcc pàccaxoo bi baro rek da nga nan tek ta ba na tek tekk la yoon. mais doo gis fu image bu Balla Gaye waxee ci Lac de Guiers lu ñaaw doo gis fu image bu Lac de Guiers waxee ci Balla Gaye lu ñaaw man aussi Balla Gaye Lac de Guiers du ma lu ñaaw kon defe naa ñun suñu biir réeréewuñu mais dafa am ba ci dafa ci yenn àndandoo yoo xam ne yenn boo yoo xam ne ñoom li leen dundal rek woo nañ caméra bi dal nañ ci mbër buñ paree na mbër mi mbaa yaa ngi seetaan loolu defe naa am na ci langue politique am na ko doon woote téléphone naan yaa ngi seetaan yaa ngi dégg li ma am benn euh, yaakaar ne mbër mi dala ci jàpp te mbër mi dala ciy xeeb léegi nag bu mbëri demee ba juboo yow di nga rus parce que da nga xam ne mbër mi doxewul nii moo tax Balla Gaye 2 damay wax ne ku ci ànd ak moom boo yeewul rek bis dina ñëw mu teg la wala mu wol téléphone yaa wax nangam moom amul amulu ko xel ñaar nga wax ko nangam kafa yow yow dafa yow lépp mais bu lay wax ne yaa ma waxoon ci guy gi nangam da toog moxloo lu ma xam la lu ma wóor la waaw moo tax léegi buñ boo leen gisee ñu àndaat dina bëri mu jaaxal mais man mi xam wala ñi xam du leen jaxal parce que koy bay àndaat ñoo bokk seen soose barki dem biñu ma naan may bal gay de la dëgër jowé lo ci man leen lu sama yoon dañu xulo bay àndaat ñoo do bokk seen uufanteeg seen bok ñom soose mom du soosal kenn ñom ñaar la kenn du soosal kenn sa morom ñom ñoko bok bokk duñ soosal kenn ñom ñaar la bo ci diggé loy def da ngay jaxase mais bo gisaté ñom ñaar ñu and nekk ci jamm fekk yow nga waxon ci jamm yow do firi moo firi duma gis balagay di seug duma gis la regay di seug ta kenn ku ne amna droit dem sa kër defal neex kenn ku ne mun naa la woo téléphone wax lu ma neex te dooman cam parce que ñoom seen gise bi wala seen kii bi man dara réeru ma Balla Gaye xam na Lac de xam na su dañuy waxtaan tout le temps mais xam nga ñun suñu biir xamante nañ quoi ñu bàyyi tamit wax dëgg yàlla bàyyi mbër yi ànd comme ni ñu ko doxalee rek xam nga ànd ak sunu grand liiru jaan di ko nuyu baax tamit moom di ko ziar di ko jox waayam di ko ñaanal yàlla combat bi mu jëm teñ ko xool adversaire mu leer ndax moom lam du moom tamit. nañ ci ñëw non xam am gars yi xam ñi ngi café loo xam ne jërul café yow ko xam ne ci ay put lay dóor man bi ma wooyee. dama woo man bi ma ko déggee ma am ci information dama woo Balla Gaye ñu nekk diine. munu mu ne ko guy gi mooy woote ma ne ko ma ne ko jox ma ko mu jox ma ne ko grand mu ne ma ne ko kooku neuf ëpp sax neuf treize kaaw la am te ci yu ëpp bu dóoree esquive bu jugee ci put bi lay dóor nga wàcc. nit ñi nit ñi gis nañ ko. léegi nag moom ñu bokkoo koo ñëw saraxe ko naan ko ki ñu lay jox mag la yooyu na leer parce que ñun ay rakam lañ te doyalaguñ ci moom voilà. macha allah balaa bëgg naa ñu dugg foofu mais balaa ñuy dugg foofu rek ñu gis ni en ce moment Balla Gaye 2 amagul combat guy gi boobu ba léegi bëre na amagul combat te yi ba léegi ñu ngi ci terrain bi di entraîner mais gisuñu ci guy gi lan la. waaw non man damay daw rek parce que man fi mu jóge su ma wér gi yaram su may samay encadrement sama staff ak combat bi ma bëree damay daw rek nekk ci li ma nekk. du blessure du dara alhamdulilah tous de bas lépp tout est ok boo ma gisee nga xam ne guy gi alhamdulilah mi ngi sant yàlla waaw kili na damay daw rek léegi nag li des euh, di nuyu suma coach njiim quoi ak suma médecin seex maa ngi koy nuyu bu baax tey li ma gën a desul ci làmb ci la bokk di leen nuyu bu baax xam nga man comme que daal daal maay war ci làmb maa suma entraînement maa yegg suma bopp normal santé li des ay détails la quoi li des ay détails mooy maa ngi am ay contact pour da ngay bëri diw da ngay bëri du caagan damay xaar sax mais man maa toll foo xam ne bu may jëlaat damay jëlu leer parce que j'ai pas droit erreur combat bi may jëlaat gagné rek moo ma ci war bëgg xaalis du tax ma jël ko yaa mën kii du tax ma jël ko day leer naññ ma xam ni kii bu ma ko jël na ma ci am ndam du li du du ndam seetlu ay sëriñ ak yooyu nag quoi mais xam ni carrément kii su ma ko jëlee du ma tax ak moom moo tax may jëlaat combat ko parce que yëpp ma sumay supporter te ma ci des na quoi ñu gis ni guy gi day ay combat yoo xam ne combat faar lay doon ci géejawaay ay combat yoo xam ne combat yu géejawaay di soxla la mais souvent da koy perte te bu su ko ni nga xam ne guy gi mi am na lu mu bërewaale lan mooy waral loolu waaw waaw des fois kenn mënu wax lépp fàllu man bañkat laa kenn mënu wax lépp te géewaay daa am nu muy doxee te dafa bëri ñoo xam ne kuñ yërëm wala kuñ la kuñ lëng lañ bëgg kuñ ëmb mm. te man doxewu ma noonu damay obligé rek dem lu yàlla def ñu xam ne loolu la mais loolu jeex na quoi incha allah léegi daal saa maa ngi ci ay loxo yu wóor maa ngi suma frère boo xam ne wax dëgg yàlla comme li ma la wax nii rek mooy kii tëgg tournoi bi ni muy euh, box event suma xarit la suma nit la mm. bañu lu ma dara barki démboo njaay rek sama doo bi mu paanee bi mu kii déggee damaa paan moteur bi ñuy waxtaan dina ma loo bëgg mm.

muy événement yi muy tëgg te incha allah moom dinañ xam ne nit lu baax rek moo am solo ko géejawaay ak làmb fan lañ leen mën a xaar saison deux mille vingt quatre deux mille vingt xam man dama leen wax lu garaaw. dama leen leen na Balla Gaye na guy gi dem na Balla Gaye na kii la dëgër dem ci Balla Gaye tafu ci moom. def na ko defu ko man maa defee sénégalais nag. xoolaatal Guèye fa la jëm. xoolaatal Lac de Guiers fa la jëm. Balla Gaye amul lu mu ciy gagné moom yàlla may na ko benn mbër la gars yi bëgg Guèye muy Balla Gaye waaw benn mbër. la gars yi gi yàgg na wax loolu ci ay communication. waaw mais mais duñ ma bàyyi xel. loo gis daam njiit. waaw maak que maag moom buñ daan mbalak di tooñante gars yi duñ comprendre def nañu loolu sóola boo xam ni. dañ koo gëm. mais mag Balla Gaye ak Baye Ndiaye. man Balla Gaye Baye Ndiaye Lamine Golo. Lam eh, ci Thierno Gueye. lu ñu wax suñu biir rek mën nga koo seede. surtout man Baye Ndiaye Balla Gaye. Mhm. dafa am jaar jaar buñ jaar. mais loolu. bokoy wax nak dañuy defe ni xam nga da ngay tag mbër mi wala te amu xol xool ki ñaan parce que nit kuy tok nga tok mo xamni beure nga ba nga beure wala nangam na mu wolo ba nga ñew wala mun la fiis fo nek ñu dajé nga ñew nga dajé ak mom mu jël xaaliss bu bëri jox la di waxtaan ak yow di xol sa wérgu yaram bala nga nit ku bala mais suma ma ko xul duma gor mhm. mais mo ko rakam da nga dégg man mo wax ci te man te te man maa ci waroon gën a mën a wax mais xam nga tax dama ci wax yàgg-yàgg trop muy guddi Sa Thiès ci tànk Balla Gaye lay lay fanaan ñoo bokk ndey ak baay te yaatal na ma de mun mhm. naa ci wax nit daam foo yem lu ma Balla Gaye jox jox jox cër mhm. Sa Thiès jox ma jox ma cër mhm. lu rafet rek la wax ci diggante bi te diggante bi dara newu ci ay tofa ñoo mel noonu bu guy gi de gars yi déggul guy gi wax ci mu ñu def ni guy gi daa jéng wala non nit daam lu mu war a wax am lu mu war ta wax am foo yem ak foo xam ni fu ñu la yemalowul nga fexe yow ba yem fa yow mais bis boo fa duggee bu ñu àndee yaa fay des sagam seen yaay moo leen nii man mii seen yaay munuma ci dara wala dara amu fi waxumal na koo xam ni peut-être mais danga gis ñoo xam ni dañu war a lijjanti seen kër wala ñu lijjanti seen problème mais Fallou day jóge rek jël victoire bi jox ko Sathies mais Fathia yow lan nga jot ak Balla Gaye te Fallou am problème boo xam ne nii waaw ni Sa Thiès defi communication baaxul yaa yokk problème bi. dëgg fit waaw lu si yoon. journalisme nga yamal ci wax journalisme rek. yam ci rek. yow bu Sa di yokk communication bi bu wax ak Balla Gaye lu si laaj ko ci làmbam mais bul bëgg fii tey ba yokk ak aggraver problème bi mm. doo dégg ma wax ji la may wax man ak Sa la la may wax man ak Balla Gaye mais doo dégg te la jël ma ma naan lay Balla Gaye Sa man ma am lu ma doy sëkk. man ma am lu ma doy sëkk sama famille est bëgg naa ñu xam ko. mais ñaar ñu bokk ndeeg baay tofe moo mel noonu ma sama mag mu sama ma dóor ba sama bakkan bi damm. Modou mais li ma bëggaloon tey mooy lii. nit yëgu ko kooku mooy suma xalifa sama papa fii ndool sama papa ngi dund mais moom laa jox lépp. nit du ma dugal sama digganteeg moom. du sama soxna du sama yaay du sama rak mooy suma lépp fii ku fi dégglu sa mag jërul toog ci télé bi di wax nit ñi xam nañ ku fi déggal sa mag jërul teg ci télé bi di wax nit ñi xam nañ mais rakk jàmbar tamit bu dégglul magam yow teel sa mag bi nga déggal nga toog moo gën nga toog ci télé bi di victimiser wu naan sama mag déggal naa ko na nangam nang yooyu amul sens yooyu day yokk xar mi karaw soo amee loo koy wax wol saa Thiès boo amee moom infinité nga woo ko ba mu ñëw këram nga wax ak moom pas média mais bëgg média di xogguliku naan Balla Gaye li ñu jox la micro naan loolu amul sens amul sens nañ na naa maanu ci côté boobu daal bala Balla Gaye Gouye Gui Lac de Guiers Sa Thiès Guédiawaye ak li ma ci wax ñu tënk foofu xam ne incha allah saison bii ñu nekk maa la bindal téeral Guédiawaye nëmma wan te incha allah te loolu lay demee. Arafas yow la jógee dugaat ci lan. non Arafas moom dafa ñàkk sens ci côté boobu. ndax lan. parce que xam naa guy Gui mi mu bëreel tax na mu defee ni fi mu toll nii au sommet mais. champion la nag. suuru la dëgg. mais koo xam ne wax dëgg yàlla. bëri na ak fois mu mel ni building bu taxaw. du ma lim sax naan noppi rek. mais yow nag da nga koo sonal lat sonal ma lat suma waay la. lat suma waay la de. ni nga koy gisee nag bopp bu rëy bi billaahi dafa may déglu. Exo Sa Thiès wax noonu bopp bi bopp bi dafa rëy dafa rëy. boo toogee moom sax nga xam ne non bul maa sa ala tuuti ba loolu daa jar tuuti ba kooku bopp bi boo ko catoo ma ñeegu daa wàññi dara catoo ko ma ñeegu yaa ngi mais bu ma toogee moom daf may déglu. Lac de Guiers bi mu génnee man kenn gisul ma dem fa mais dama communiqué hmm. mais ñim ndëkk déggantal ci laa bokk. lol cër la mais est-ce que mënu woon toog naan la dëgër déggante naa moom nangam ban sens la am li ngeen seex seexee leen ko la dëgër mën naa déggante ak moom te bëgguma Balla Gaye mën naa déggante ak moom te bëgguma mais nit ku ne fa ma yem laa la yem mais xam naa ne ñii dañ maa bëggal seen bopp ñoom man maa leen dundal ñoom. bu ngeen dajee ngeen kafoo ree daw song. démb Balla fan yëpp diine la may soo lan moo tax diine diine diine ma ne ko koo humilier nga bëgg nekkoo ci dara nekkuma ci dara laa dëgër nekkoo ci dara mais koo humilier nga bëgg xam la. su ma dina ànd ak liiru def li may def ñëwaat parce que foo ngi ñëw ma def la la saamet jël la këb la yàlla la yëkkati affaire yi humilier la dem toogaat mais na xam nga ñun suñu suñu biir dañoo tàmmu dund boo xam ni euh, li des ñun léegi suñu suñu âge dem ñun mais suñu rakk yi lañu bëgg ñu fondation waat loolu mm. Fall xoolal jamono bi ñuy former suñu match yi terrain njaareem école Balla Gaye école Mor Fadam Balla Gaye match kerem fii jox ma match kerem Balla Gaye takk capitaine ma takk capitaine stade bi jug Lac de Guiers génn fee ñaari nen yi naan deux laay dugal guy gi génn fee ne man tamit deux laay dugal ñu bëre ba pare àndaat nekk benn bokk benn oto xoolal loolu lu dàqoon loolu jamono yu géej péré lay jël Balla Gaye di daan guy gi di daan Lac de di daan Sa Thiès di daan Pambaay di daan ñun ñëpp booy yi ñoo àndandoo di daan mais loolu lañ bëgg indiwaat suñu rakk yi des fi parce que li ñuy defal nii du pour ñun ñun loolu dem na mais suñu rakk yi lañ bëgg a formé waat te suñu rakk yi ñi ñu bëgg a comprendre léegi gisutoo booy di def sorti di jàppal tànk Balla Gaye di di jàppal tànk guy gi waaw parce que tamit loolu journal journalisme bu mel tamit yow dëkk gi am na ci solo ak Thier damay cité yow ak Thier parce que des fois nga jël nit wala des fois nga rassemble nit wala des fois nga rassemble benn wax boo xam ni pour bëgg ñun géeyaay ñu nekk parce que mën nga dëkk géeyaay ñu xam ne yow journaliste nga mais yow da nga da ngay far lu far lu far amul rek baaxul da ngay far force parce que géeyaay nga far da nga bëgg géeyaay jëm ci kanam tey bu beneen mbër doo géer yow tey bi bu marre de bëre ngay rapporter gisuma la mais doo rapporter loolu moom da ngay da ngay far yaa ngi maral ni ngeen mel bu mal dee bëree keneen a yor micro wala booy wax doo xam looy wax noonu la mel nag waaw dañ la ciy sant côté boobu dañuy sant tamit cher journaliste moom bëri na mais man li ma gis rek lay wax parce que man bëgguma koy wax fii di wax fii di jëf fii di jëf fii te yamba o oba ni ko tubaab bi di waxee bokkul <laughs> dundee ma noonu quoi. macha